ñu ci jaayee yow ma kii bi tamit ma tëral. li baax asaraba tamit ci tëral. waaye tamit buñ kaaw bi buñ wàccee ñu mën ci dafa kàmbar. dinaa mën ci kàmbar bu mu yëngu waxal allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallah non góor yi góor yi ñoom ñoom. bisimilah foofu ma wax sama jëkkër lu dul bu wax maa ngi gën a jotee woon ñu naan ñu naan yàlla ñu gën a jotee woon ñu naan yàlla. loolu boo xaaxaatoo pour ko waxal. wàcc na ba nga xamee ne laaj nañu yonent ba la day woon jot a aar kaaf yi. xelal yi ñoom kaaf yi ak seen xaar yi ak roxo. ñu naan nag ma tontu leen. te fàtte waa incha allah. ñooñu ah xaq ñoom yonent ñoom tamit yàlla waat na yonent yi yàlla du nangu ci ñoom dem na man ci te ñun seen diggante seen borom ba nga xam ne li gënoon a mat mooy bu wax lu jëm ëllëg xam ne ëllëg yàlla ko moom mu wax ne incha allah ba mu fàttee incha allah yàlla nattu ko wóoru la doog nag fukki fan ak juróom am na ñu ne ñoom fukki fan su dul wàccu yëfëri ñu ko ñaawal nag dina ñëw ba ci kanamam ñoom ñëpp ñoo la yaadoo ko du ko ñaawal naa ko sa yàlla yow ci la la fukki fan ak juróom lañu waxoon ëllëg lañu waxoon léegi la fukki fan ak juróom ana ñu na ñu na su ne yëg ci bëj sax ba bëgg daan ci suuf kaw su ko defee rek jundul na ko déedéet yonentu yàlla nga bañ na yonente ñu na yàlla wàcc na ko te yàlla dafa yoonal ci sariatu yonentu al bayyinatu al hudaa wal yaminu ala man anka ku xoote yaa war a indi seede ci weddi moo war a jëñ ku kalaame daal yaa war a indi seede ci weddi liñ ko ñuwaay itam war na jëñ yàlla ni yoonal loolu bu maandoo daf koy jëkke ci boppam moo tax mu jëkke ko ci boppam ina fa na nañ yàlla wàcc na yonent bi te bañ na ko ñoom amuñ seere ci liñ wax yàlla mi nga xam ne moom lañ duural nag mu war a diig li ñuy jëm wadduhaa jëmi na ma bëccëg wala yoor yoor muy xaaj ci bëccëg wala yi jëmi na ma guddi ila ka jaa ba mu mu reef lëndëmam ma waddaaka wallahi bañ wut la rabbuka borom ka ma xalaa bañ mu re de yàlla moom waat na nañ dafa bañ yonent bi na ne génn ci yoor yoor mu di ak xaaj ci bëccëg génn ci guddi lépp mais bañu yonent bi bàyyiwut ko itam de bàyyiwut ko bañ ko kon dañ ko tuumaaloon loola rob na ci saar wi yàllaa ni jëriñ dëkke yoor yoor bu mu jëy guddi ci saar yi génne guddi la jëkk jëñe wane yi yaa saa sama yi wan aari laa xëjënda lu tax saar yi saawa Abubakar la te Abubakar man mas maa nekk yéefar gannaaw ba mu soog a nekk jullit moo tax ci saaram guddi ci lëndëm lañ jëkk a tudd soog a tudd bëccëg ci leer ndax mu ne dina Abubakar mel ni yéen yéenam dafa lëndëmoon yonent bi nga xam ne mës na jaar ci kéefar même ci duggam yàlla moom saaram bëccëg lañ ci jëkk a tudd ne soog a tudd guddi waaye duñ dëkk lépp yoor yoor lañ wax dëgg moom ñu tudd lépp lu tax bëccëg ñu ngi mel ni njëkk dëgg ñu ngi mel ni jàqare te yàlla ba mu dindee mbindee bi dundu doomu aadama yi dafa santaane ne nañ taw ci ñoom taw jàqare ñetti téeméeri at soo ko taw ci ñoom njëkk genn guddi moo tax àddina yëpp ay jàqare la njëg yi di ci ñëw la li nga xamee ne bëccëg moo misaal ndëkk guddi moom misaal jàppale te jàppale gën a bëri ci ñu wàcc ci ñun moo tax dëkk moom ñu xaaj ko ñu yor yor ba rek ndax ndëkk dama xaaj la guddi moom ñu tudd ko lépp yàlla génn ci yor yor génn ci guddi lépp ñu bàyyi ñu ko bañ ko rek kon nag bàyyi ko te bañ ko ñu tegal ko ñoom ne ko wala laaxira te saa laaxira xayr mu gën lakk ñaala ñu naan wala ci àdduna rek te yow yonent bi a laaxira gën ci yow àdduna rek saa laaxira gën sa àdduna a laaxira ay teraanga rek la fay am ak bànneexam àdduna naqar mu nekk gis na ko fi rek kon alaxira gën ci ñoom àdduna sa alaxira sax moo gën àdduna ci ku nekk rawatina ci yonent rek wala laaxiratu alaxira xayrun moo gën laata ñu yàlla yonent yàlla ñu ne mu laaj ci àdduna yonent kay taxut ñuy wax ñoo xam ne baal nañ ko la jiitoom yónni bi lépp kon nag dara ji fii xeeta ma tax ñu di ko def. bu ne woon lakk mu am na ci xeetu ñoo xam ne bokkuñ ci. te su ko roñalee weer leen. te lu ñaar yonent yi xeet yi dañu naan ko topp. kon nag lu mu doon waxee lakkum pendi ci am wala mun naa di fulaani wa fulaani nañ tudd rek dikkal leen ak weeru mu far ko laafal yonent bi ki nga xam ne lu mu am ñoo ko moom mu ne ko alaaxira la gënalul àddina de gis nga ni yàlla bëree sutura solo nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne yonent yàlla Muusa mas na ñoo mar mu génn ànd ak ay junne ci sarina di baaw ñetti fan yàlla tawut mu ne yow yàlla ñetti fan yàlla maa ngi ñaan taw tawut gis nga ni mu doy góor yàlla ne ko du ma leen tawal ndax abara mbaaje ngi ci seen biit te fi mu ngi ci seen biit du ma leen tawal Muusaa ne ko kana ak mu ne man ma bañ ko bañ jëfam dee te tax may teye taw bi may def li muy def su ma teye diw la rek rambaaj naa ni moom kon nag du ma la wax kum doon loolu la sa Jibril wàcc na ko ba mbaaj bi mu doon laajte dee na ak nuyoo mu nga ci buntu jàkka ja Moussa wendi buur bëgg a xam jiw bi dee kan la ñëw fekk fa juróom-ñaari juróom-ñaar fukki tabb xamut kum ca doon noonu la yàlla bëree sutura ci jaamam bi koy mooy naka bi koy topp bon waaye seetal safaanab xeetu Moussa mooy xeetu yonent yonent na ne su taxu soona ak màggat ay màggat yoo xam ne ñu nga màggat ba sëgg ak ndaw ñoo xam ne ñu ngay nàmp kon yàlla sotti ci yéen mbugal ak sotti xeetu Muusa saari yi ne ñu nga leen di bugal ngir kenn ku ne ci ñoom kuy moy xeetu yonent moykat yépp mu ngi leen di xéewal ngir ñenn ñi ne ci ñoom ñuy topp dégg nga niñ safaanoo ñaa bañ nañ leen a tawal ngir benn rambaay ñii ñu ngi leen di tawal ngir xale yi nàmp ak gone yi ak màggat ñi dem ba sëdd wala soo fay wax yi ko xam naa jox la rabbu ko borom sa ba tar baa ba nga gëdëm de yàlla dig na yonent bi foofu dig bu rëy yàlla dana la jox nag ca àllaaxira dafa xol seen mu ree ne soo fay lu ma gëdëm mukk fee kenn ci sama xeetam yi dem safara dafa toogoon xalam mbaj xeet yi mu jàqalool maa sama borom sama xeet Jibril ñëw ne ko loo loo tawat mu ne sama xeet rek laay xalaat mu mu ne ko mu dem ci borom ba dellu si ne ko sa borom ne mu jébbal la sama xeet loolu neex nga def ñëwoon mu ne mukk mu ma ëpp yërmande mu yërëm ma leen moom ci boppam moo ma gënal ndax mu ma ëpp yërmande yàlla ne Jibril demal ne ko kon nag danaa ko jox ci xeetam ba xolam sedd yonent ne sama xol bu sedd fee kenn ci ñoom dem naa safara moo tax ali seen la abi yéen na ne malamaaw yi daje nañ ci ne yaa ibaadiya allaziina asrafu alaa anfusihim laa taqnatuu min rahmatillaahi inna llaaha yaghfiru zunuuba jamii'an laay jooju moo ëpp yaakaar ci alquran yàlla wax ne yéen sama jaam yi yàq seen bopp bu leen naagu yàlla dana bale mbooleem bakkaar jooju laa gën a yaakaar lu ci alquran ahlul bayt mu ne ñun ahlul bayt nag jàpp nañ ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa moo gën a yaakaar lu ci mbooleem laa yi ndax yonent du gën a mukk fee kenn ci xeer yi dem na si baro alhamdulilah su ko fàttali nag alam yajidka fekkoon na mu la yatiman nga di jirim fa aatam topp la istifaam bu dàq ba ji dàq daf koy faxal bi yàlla fekkoon na yonent bi mu di jirim baayam dee na ba ma ne ñaari weer ci jirim ndeyam mu judd fekk benn baay caabil yàlla rek la fekk yàlla moom tapp ko rek tapp ko ci maamam Abdul Mutalib gannaaw ko ci baay Faham Abi Taalib gannaaw ko ci Xadijata rek boo wajjira tam fekk la baaloon nga ajiri nga li nga li nga nekk tey ci sariyaatu daa daa tam jubal la ci de xam-xamu sariyaatu bii nga tamp caabi na fi te dëgg xamu la ko woon de man yàlla maa la jubal ba xamal la ko rek liir bi jàngan ñu mun ko sila ak kuréelu yàqule yi di wax ne yéen ci yéefar la yéen ba yàlla jubal bi loolu jàmbale la tamit yonent la ko tudd gëm yàlla la juddaale mës ba jaamu këram waaye nag xam-xamu sariyanti bi mu indi xamu ko woon lu jiitu woon léegi rek yàlla ko ko xamal oo jërëjëf katam fekk la ah yéen gars yi ñàkk faa maa kan moom amal la. kan benn yoo yàlla fekkoon yonent bi amul dara. bu jirim bu fàggu dara jaaral. yàlla moom la ko rek. suñu aali Xadija ci biir leen. ba mu ñëwee doo aali Babakar. ba mu ñëwee doo aali Mangi. parce que suñu ñëw. dafa dafa doon am kawam ba ni mu gën a àddina. kon nag yàlla bi la fekkoon day gidim ñu dugal la ko tey ngay sangat boole nit ñi ñu fekkoon ñu ndari ñaar ñu xamal la ba nga sa xam-xam mooy jëkk mooy mujj ñu fekkoon na ngay ku ñàkk a am dara mu amal loola ba nga xam ne ngaa doo pëye yéen dinañ wax ku ñàkk yàlla dafa am soo jaawal di ko boole lu dikk mu jaare ko waaye ñu fekkoon ni du noonu xam ne mu teesaar fa amal yatiima laa jirim falaa taqhaa bul not ko rek bul not jirim yaakina si noonu nga nga xam ne xaalis doomu xadijatu ak jëkkëram ji njëkk ja xaalis noonu noonu naa bi xaalisa Xadija ko am na yaari jëkkër lu jiitu Yonent sallallahu alayhi wa sallam kenn ka am na moom doom doom yooyu ay jirim na ñoo ñu nekk ci loxo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa àgg Xaaris moom la ko yàlla yee dina ko jirim bul ko jàgg rek wa amma saa'ila laa aji laaj amma yatiim laa jirim falaa taqhar bul masxor wa amma saa'ila laa aji laaj falaa tanhar bul jàgg ko rek am laaj kenn bu ko jàggee am na lu ko waxal suñu ne woo gerte bi suñu naa Ousmane ñu naa Fane dafa dem ci jéem a gis ci biir tànnama bu xiiw mu ne bii tànnama daal di yónent rek laa koy yéene jënd ko indi jox ko yónent bi fekk yónent am ko soxla lool benn jirim benn miskin topp ca ba mu ko jox yónent rek mu ne ko yónent rek am ko yéen daal di ko fab trop. ñu génn fi ñu naan Ousmane dab ko. ne ko jaay ma ko yow njëkk yëpp dana am ci yow njëriñ. ñu ne ko jaay naa la ko. fi ñu naan yow jënd ko ci moom. génn fi joxaat ko yonent. waaye ñoo wàññeeku ñëw ne nga ne defaral ma ko yeneen bi dara ko jox Usmaan topp ko jëndaat ko ci moom dellu si jox ko yeneen bi waaye ñu dellu si ne yeneen bi sadax ma ko yeneen bi dara ko sadax ne ko xamu ne nga yowaan xamu lay jural yéen a am ma saa yore naa laaj laaj saa te nar bu denc ko rek ak yowaan kat bul xaw a dara sadax ko rek waaw maa dina ma ci rabbi ko ndax xéewal ak borom sa ahadis waxtaane ko rek li nga yàlla jox ci xéewal waxtaane ko ci bunta sant yàlla moo tax waxtaane xéewal yàlla ngir sant yàlla loolu ñun ñaañuñ ko nit taakaayoo ko ak réeroo ko loolu